Serigne bu PDG bu groupe CCBM ni nga xam ne noonu la koy defee at mu jot defaat na ko ren ji ci wàccaayu màggal gi moo di yëkkati lu takku ci ay bernde yoo xam ne dafa jëm ci waajal ganu Serigne tubaay yi mu jébbal ko comité d'organisation bu màggal gi loolee moo tax mu indi camion bi nga xam ne da ko sëf ba mu fees ak boisson ak li nga xam ne moo jëm ci ndox loole lépp mu jàppale ko comité d'organisation bi ci ganu Serigne tubaay yi nga xam ne dañ leen war a berndeel andi lenn ci ab siyaaram ci màggal gi ndax duñ wax sax ne participation ci màggal gi waaye lenn ci addiyam ji nga xam ne da koo jëmale ci Cheikh mun taxa ak comité d'organisation bi ngir muy jàppale ñi nga xam ne eh, ci dalal gan ñi fi ñëw tax nii ñu ko gisee eh, ci xeeti naan yi ñu andi ci liñ ci indi loolu nag xeeb na ko lool dafa tolloog niñ ko waxee nit su fekkente ne sax làng dafa yaatu fu nekk nga bëgg faa jëf na nga ko bëggee doo ko ni mane waaye ku xam xolam da nga xam ne àgg na ci su ko mënoon mboolem li ñuy màggale ci dëkk bi ku nekk moo lay fekk sa kër di ko fa def rawatina li sëriñ bi war a def waaye kon lii daf ko cee daf ko cee feeñal rek tey ñaan mu bañ a mat asaka sax ci déwén lam fi war a indi euh, loolu it yaakaar nañ ne danañ ko ñaanale bu baax a baax a baax kon daal loolu la doon joxe xam ne day mel ne daanaka jëf bu matee du jar wax ja di bari te niñ ko waxee woon loxoom da jóg ci lépp lu ñu yëkkati te lislaam tax waaye rawatina nag su dee lu aj ci yoonu murit te jëm ci dëkk bi eh, moo taxoon tey jii rek eh, mu ñëw di seedeel lii kon ñu ngi leen koy jébbal nii ci turu sëriñ Mboup ak eh, Serigne Fall mi nga xam ne moom la ñu àndal di ko jébbal kilifa yi nga xam ne ñoo fi teewal kilifay comité d'organisation bi. bernde yi nag ñi nga xam ne ñoom la Serigne Mboup yabaloon bi ñu agsee jébbal nañ ko waa intendance bi nga xam ne ñu ngi nekk ci comité d'organisation bu màggal gi ñoom it santaat nañ bu baax a baax sëriñ Mboup ci jëf ji nga xam ne at mu jot. da koy gën a yokku te bëri na loo xam ne moo jëm ci bernde màggal yi kenn mënu ko ci. suñu mbokku taalube di lii mu yàgg ko def ndax fukki at yi yépp ma jiite commission bi sëñ Mourtala ngi nii ak ñuñ àndal waaye at bu jot nii ngeen di def ñëw andil ko sëriñ bi ñu ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool ci ànd ak wér sëñ Muntaxa ak njabootuk sëriñ Touba gi yëpp sëñ xaali kon euh, xam naa cant yeeg yooyu yëpp ñun tur nañ ci waaye nag mën nañ seede ndax liggéey boobu ñun lañ ko dénk tey ne sëñ mbuub ñëw na ca yàgg naa ñëw ca saa bu ñëwee ñu xam ne ñëw na kon li ñuy def rek mooy ci jëmmi sëñ Touba ak jumaa ji ñu jàkkaar ñu ñaanal ko euh, li fi mu bëgg àgg fépp mu àgg ndax nit la ko baax ku fonk diine euh, ku gëm sëñ Touba ku liggéeyal yoon wi te loolu ñëpp seddal nañ ko ko kon nag lii ñu ngi ko ci sant di ko ci di ko ci gërëm ci turu sëriñ bi daaw heure bii kenn njëkku leen fi woon mbiru ndox mi ñuy jëfandikoo aussi ci gan ñeeg loolu dama ne bu doon téeméer euh, juróom-ñett fukki sëñ bu moo koy def at bu jot mbiru boisson bi aussi loolu la li ma gis rek laa wax nag nag man waaw am na ñeneen ñuy def nag ñu bëree bëri yeneen taalu beeg yeneen société vrai vraiment mais lu fi waay indi rek ngir sëñ Touba ngir bis bi danañ ko bind ñun leeral ko sëriñ bi na nga xam ne noonu lañ ko ko leeral. jëf ji nga xam ne nag sëriñ buub def na ko bi ñu agsee wàcce nañ ko fii ci résidence xaadim rasul ngir waajal gan ñi lii nag lenn rek la ci li sëriñ buub di jëf mu jëm ci màggal gi nga xam ne moo di 18 safar di bisub sant bernde ak jaamu yàlla.